Souleymane Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Souleymane Diallo nga jiite euh, ONG bi di Otra-Africa euh, fan yi nag dañu gis ni wàllum immigration irrégulière jigéen yi dañ ko jël lu baree bari di ay jigéen yu ëmb ay jigéen yu yor seeni doom yu ndaw euh, di dugg si si gaal yi ban jàngat nga am si mbir mi. waaw nga permettre ma balaa may tàmbali mën nuyu seen seen yi. ah wax dëgg yàlla loolu tamit euh, lu ñuy seetlu la fan yi euh, immigration mbëkk mi dafa jël euh, ay fànn yoo xam ne xalaat xalaatuñ ko woon yaakaaruñ ko woon puisque léegi bu ñu demee ba ñuy gis suñu xale yu jigéen yi nekkatu sa ay xale léegi ay magum jëm ay jeeg di jël gaal gi di dem mbëkki loolu moom wax dëgg yàlla lu doy waar la lu ñu lu ñu tiital la waaw lu ñu war a bàyyi xel la parce que nag euh, suñu demee ba jigéen bu ëmb xalaatul lu muy muccee muy xool lu muy génnee réew mi kooku jaaxle am na foofu am na leneen lu si rax ñu demee ba di xool ay kilifa euh, ay naayim ay imam ñoo xam ne ñoom ñoo waroon waxtaanal nit yi delloo leen ci seen bopp delloo leen ci seen sago léegi ñoom seen bopp ñuy jël mbëkk mi loolu moom dafa tiitlu dafa ragal lu trop donc nañu xoolaat dëgg-dëgg lan moo waral loolu ndaxte nag mu ngi commencé nekk lu ñu jaaxal. Mmh. est-ce que aussi du du dund bi cher bi nga xam ne actuellement ñu ngi ko yëg fii ci Sénégal moo waral euh, nit yi daw di génn est-ce que lu ni mel. du ko waaw xam nga bu ñuy wax waxu dund bu cher euh, loolu am na fu ni kenn mënul naatam leen ni ko dindi dund bi cherul mais foo munti da ngay dund donc euh, seeraayu ñàkk xëy bi. Euh, pauvreté bi euh, am na ay coow yu bëri yoo xam ne jibul réew mu euh, rax si dolli amatuñu yaakaar si yenn yi suñu njiit yi lu ñu wax kenn gëmatu leen kenn wóolatul suñu njiit yi loolu yëpp dafay war a tax nit yi xaw tiit am tiitaange am ragal seen bopp dem di jéem a jéebaan ji feneen mais dem di jéebaani feneen tamit bàyyi sa réew li ñu war a xam mooy ni que allah kulli alim réew bi ñu ñoo koy tabax te toog fi réew bi di defar réew bi ak ay jafe-jafeem loolu moo war a nekk défi wu jeunesse loolu moo war a nekk défi wu doomu réew mi. Euh, tey jii Souleymane Diallo ñu gis ne aussi euh, euh, Espagne ak Sénégal dañoo lëkkaloo pour gën a mën a wàññi gaal yi nga xam ni mi ngi jëm Europe naka nga gisee coopération boobu boobule. xam nga ñun fële si ay jamono bi mbëkk bi génnee rek jotoon nañ fi wax li ñuy wax noonu seen communiqué yi Espagne tamit dafa di réew boo xam ne dafa am ay réalité économique am dafa am ay réalité sociale am dafa am ay réalité culturelle am donc euh, diggante Espagne ak Sénégal ñu lëkkaloo di def benn liggéey pour tere mbëkk bi du lu bees léegi mu def ñaar fukki at bi mbëkk bi commencé ba léegi Espagne ak Sénégal ñu ngi collaborer pour mën a arrêter mbëkk mbëkk baa ngi nii di donc loolu lu bees la peut-être nag nañu changé waat xool neneen li ñuy def mais daal li ci wér ba wóor ku ñu mun te teg suñu baaraam mooy ni que xale yi nekk ci suñu réew dañu bëgg a génn dañu bëgg a tukki génn tukki boobu nag kenn waru leen ko mën a xam tant que ñu ngi leen di ko xañ dee ñu gis ay mbëkk bi léegi li ñu war a def mooy wut ay pexe xool ñi nga xam ne dañu bëgg a dem ñëpp nag mënuñu dem loolu tamit ñu wax ko ñëpp mënuñu dem mais ñi nga xam ne war nañu am nañu yenn caractères am nañu yenn kii profil yi ñu xool nan lañ leen di accompagner ñu mën a dem nga xam ne gouvernement bi nga xam ne ñii ñu ngi dem ci dem bu wóor ak dem bu leer ak dem bu légal. Hmm. Euh, euh, foofu euh, ñi nga xamante ni d'habitude dañuy jël gaali yi Souleymane Diallo ba yegg Europe amuñ papier amuñ kii jaar si yoon boo xam mooy loolu lan moo nekk seen seen sort en fait lan moo leen di xaar foofu tubaab yi naka la ñuy procéder ak ñoom. waaw xam nga nag ki faut ñu nangu dara mooy ni que gis nga wàllu migration dafa am ay convention ak ay protocole ay loi internationale yoo xam ne ñooñu ñoo ko garantir ñooñu ñoo ko protéger euh, du ko jëkki rek ñu takk la comme xar rek delloolu si avion non demeewul noonu donc am na benn convention convention de Vienne am na ay convention yoo xam ne Sénégal du ko signé ak yeneen réewam mais nag nañu wax tamit xale yi leen ku dem bitim réew te yoroo kii lenn nga mën a def mooy soit nga nekk réfugié wala nga demander asile asile politique wala asile social wala asile économique te Sénégal ak am na ay réew Europe yoo xam ne sénégalais mënu ko ñaan asile mënu fa nekk réfugié parce que jàpp nañu Sénégal dikk bu stable institution yi ñu ngi fonctionner amul guerre civile amul mën de amul loo xam ne lii war nañu mën a téye nit yi ñu dund dund bi lu mu cher cher nit yi ñu ngi fiy dund te ak yooyu institution yi ñu ngi fonctionner normal donc Sénégal dañ ko considérer comme dëkk bu wóor comme dëkk bu sûr donc doomu Sénégal bu dem bitim réew difficilement ngay ñaanee asile wala nga nekk réfugié loolu tamit nañ koy wax xale yi donc dem nga si dëkk yooyu te remplir na conditions yi ba nga mën am sa kii dañ lay delloo si dañ lay delloo si. voilà loolu mooy kii bu fekkee ñi nga xam nag dañu jël yoonu Nicaragua bi ñoom lan moo leen di xaar foofu ak euh, état américain. waaw xam nga yoonu Nicaragua bi tamit ak yoonu Espagne bi ak yoonu feneen fu mu ci doon xam nga kuy làkkatu di leen. Euh, boo duggee ngay kii mais nag dem bi moom ala kulli alin mooy li may waxat encore muy Nicaragua di Maroc di Espagne ak fu mu nekk lenn la état wu senegal war a def xool nan lay accompagne doomam yi bëgg a génn loolu mooy kii restriction wu voyage yooyu ñuy def nañ ko xoolaat teggi ko parce que ñoom amaana ni ñoom mhm. politique bi ñu bëgg méngoowul ak xale yi li ñu bëgg te xale yi dañu bëgg a dem te par nii par naa xale yi dañu dem donc nañu xoolaat yoon boobu xam nga yoonu Nicaragua bi yoon bu bees la. Mm-hmm. Ah, euh, Guatemala la ñu day Guatemala Nicaragua la ñu wàcc mais tooguñu Nicaragua dañu dem Guatemala dem ba Mexique jàll dem États-Unis donc sa doom bu tolloo foofu ba bëgg bëgg boobu xoolal réew bi muy dem ak ni muy kiiwee nga xool noo leen di accompagner ñëpp nag mënuñu dem ñëpp mënuñu dem mais mënuñu mën a am ay alternative gouvernement am na pouvoir politique am na doole am na force de l'action force de l'action boobu loolu lañ leen di wax ni ñu ñu toog ñu def benn sensibilisation waxtaan wutandoo pexe ñu bàyyi ñun ku mel ni man suñ leen di wax ñu jàpp ni que dañ leen contre wala dafa am lu ñu leen di ci xoolale ñoom li ñu jàpp ne amaana ni ñoom jàpp ne ni loolu mooy dëgg mën nañ leen si fekk si mais résultat yaa ngi ni chaque jour nit ñu foor ay néew chaque jour ay gaal réer chaque jour ay gaar kàmbaraak si kii bi donc nañu xam ne ñoom fi ñu jàpp noonu am na lenn loo xam ne àndul ak li nga xam ne mooy résultat ñoom ñoom seen bopp résultat yooyu ñu bëgg kon nañu xoolaat mbir mi ñu toog waxtaanee ko te ñu bàyyi ku ku leen wax rek ñu jàpp ne que dañ leen xalab wala dañ leen contre amuñu contre pour kenn mais suñu doom yi ñuy toroxal ci gàcce gi am si xale yi ñu ñuy génnee xale yi des ci géej gi xale yi tumuranke mais loolu tamit daf ñu naxari te loolu mënuñu ko noppee nag mënuñu topp li leen neex. Euh. boo ñuy waxee dafay mel ni comme ñoom li ñu bëgg a dégg rek li ñu bëgg a dégg ku leen ku leen raayalul seen gannaaw rek da nga leen contre te affaire yi ne fa nga nit bëccëg mais il faut wax leen dëgg tamit nañu change seen paradigme yi. est-ce que aussi yoonu Nicaragua bi am na sécurité parce que temps yi ñu ngi commencé di dégg am na ñoo xam ñu ngi faatu si yoon bi euh, loo si mën a wax. dama hmm. ni amul benn yoonu làkkatu bu am si adduna bi boo xam ne yoonu làkkatu boo xam ne am na sécurité. Hmm. yoonu Nicaragua bi ak yoonu Espagne bi ak yoonu géej gi kuy làkkatu nekkoo si sécurité ñenn dañu egg ñenn du ñu egg. nañu waxante dëgg nañu xool xale yi si ban fànn lañ mën a génnee mais fànn bi rafetul baaxul. Euh, fi ñu toll nii euh, Europe ñoom naka la ñuy xeexee immigration irrégulière on a l'impression que mbir mi da leen a sax. waaw dëgg la xam nga ñoom affaire bi dépassé na leen mais xam nga Europe ñoom am nañu seen cadre bu ñuy kiiwee am nañu seen seen mbootaayu seen seen réew yoo xam ne ñoom mën nañu waxtaane seen biir. tey Espagne mën na jot dara ne France wala Malte wala yeneen dëkk yi nañ ko tasante suñu biir mais ñun africains yi loolu la amul. bi mbëkk bi commencé ba léegi est-ce dégg nga benn yoon bu africain yi wootee seen biir ñëw ne kaay la ñu toog ñu waxtaan ñu jéem a xool nan la ñu saafara mbëkk bi wala kaay la ñu toog ñu utandoo benn pexe si mbëkk bi alors que Europe ñoom am nañ ko Frontex boobu ñuy wax tout temps ñu koy bàkkoo Frontex européen yi la lan moo tax ñu mënuñu am suñu bànqaas boo xam ne bànqaasu africain la. tey jii Otra-Africa yéen ban solution ngeen di proposer lan mooy seen solution en fait si phénomène bi nga xam ne vraiment sensibiliser nañ sonn mais gis nañu ndaw yi dara mënu leen a téye. waaw ñun de ñu ngi waxtaan ñu ngi jàngat ñu ngi def ay investigation ku ñu toll nii euh, fan yi di ñëw incha allah euh, di ñu produire ay documents dañu dem sur le terrain probablement ak ay équipe journaliste pour xool nan la ñu defee ay échantillon def ay investigation jël toog li ci xam ak euh, teytu yi ci ciy proposer ay ay solution yi nga xam ne ñun moom la ñu mën a jox gouvernement bi. su boobaa nag ñoom su boobaa dañuy xam ndax loolu lu cohérent la wala ñoom ñoo xam nan lañ koy defee parce que ñoom ñoo yore action publique ñoom ñoo yore pouvoir public ñun li ñuy wax nii dañ ciy waslu àq rek dañ ci gis lu ñu neexul dañu gis suñu ay rakk di tumuranke dañu gis suñu ay doom bi dee ci waax yi dañu gis ñu xam nga nit ñuy toroxalee donc ñu bëgg loolu fu arrêté loolu moo tax ñu ñu ñu siy xar suñu tànk tubéy ñu siy wax mais ñoom ñoo yore Euh, baatu réew bi ñoom ñoo yore askan bi donc ñoom ñoo war mën a jël ay solution wala ay alternative par rapport ak loolu. voilà Souleymane Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. waaw kay jërë ngeen jëf merci beaucoup. voilà Souleymane Diallo ñuy fàttalik yow yaa jiite euh, ONG bi di Otra-Africa merci beaucoup.